waa Rama Macky responsable euh, jeune euh, du département de Pikine nekk euh, responsable des jeunes de Pikine Ouest. ndax réew mi dañu seetlu temps yi que ne ni wax bi dafa bari. xalifa Sall dafa am rapport bu ñu def rapport IGE justice di def liggéeyam Sénégal dafa am justice réew mi dafa am yoon ñu bàyyi justice mu def liggéeyam comme dañ ko woolu dafa am luñ koy laaj mais na wuy ji mais dugub ak dugub laa ko jëndee. ceeb laa ko jëndee dugg na fi génn na fi ci kilifa gu toll ni moom li laay war a nañu wax milliards yi nga xamante ni moom lañ ko dénkoon nan la ko liggéeye ak nan lañ nan la ko sàmmee woon. Kanta ñi muy àndal di ko di ko ne ko yow yaa fi nekk xalifa yow la nanga ak sàngam di wax président Macky Sall lu nekk ñoom on se connaît ñu nag ñoom xamante nañu bu baax xalifa nag bis bu taxee ba jeunes yi jóg ba ñu waxal ko moom xalifa Sall li ñu ko xamal. bu boobaawee ca lay gëj a président Macky Sall bat mba di ko bat mo moo ñi mu Bart Lamine Diaz aussi la même chose mom barki Dembo Ndiaye ñu ngi wax ci mom loxo magi tak takk deret génnaguñ ci loolu muy am lu muy waxati dara ci réew mi kon dañ leen di wax né ni ñoom ak seen coalition ak ñoom ñi ñu andal Khalifa Sall en personne justice moko ko soxla justice moo koy laaj nan la yoré woon limu yoron yoroon ko yoré ak nan la ci doon doxalee. xam nga rapport rapport ak liggéey bi nga xamanteni mom moom la justice bi di def. dafa am ñoo xamante dañu rëy làmmiñ rek di wax ak que ni woolu nañ ma fii ak fii mais ñi ñuy woolu bari na ñi ñuy woolu dafa bari président réew mi dafa wax lu leer naññ man nii di ànd ak yéen amul kenn ci yéen koo xamante ni dinaa la assurer sa justice wala loo def ci réew mi man sama yoon nekk ci kenn ku ci nekk na nga liggéey loo xamante ni ëllëg bu la justice woowee nga mën a tontu nit ñi lu leer président Macky Sall protégé wul kenn lu fi waay di liggéey liggéeyal loo xamante ni justice bu la soxlaa nga mën a tontu nit ñi. rapport bi nga xamante ni aussi moom la ñuy defal département de Pikine bis buñ ci jotee ci kàttanu yàlla ak yonent bi kenn ku ci nekk la nga warloog askan wi di ko def encore une fois ñoom Abdoul mbay ak ñoom euh, Barthélémy Diaz ma waxaat ko que ne ni président Macky Sall du ñoom du seen moroom te àdduna du yàgg ba ñu mel ni président Macky Sall ndax nag li mu liggéey ci réew mi ñu fi nekkoon def ko liggéey fi 10 ans président Macky Sall dafa ñëw liggéey ko 4 ans macha allah ku ne xam na ni département de Pikine bassin de rotation yi nga xamante ni tey moo fi nekkoon suñuy doom di ci dee suñu njaboot di ci faatu tey ku xool tey département de Pikine macha allah danga leen di law da nga leen di naw te lépp c'est grâce à le président Macky